bokk yi asalaamualeykum di nuyu Chérif Cheikh Cheikh Sadbou moom ak euh, Serigne Abdou Mbacké ne ñooy icônes yi kenn mënu ko cee génne mais di nuyu délégué de quartier yi di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñoo fi teewal conseil consultatif de la ville comme ñoom Thiam euh, di nuyu jigéen ñi di nuyu euh, journaliste yi professeur Lamine Ndiaye di oustaz Ibrahima Faye ndax bi ñuy waajal lii nag moom fekk nekkul nekkul ci mi la ma booleel mu dox ko ni ko je suis ci Pastef lool euh, jaar na kon ñu professeur Lamine ngi lay ndokkeel ci euh, départ ku ko arrivé ndax le cercle égalien moom ku ko jël da tout point de départ est un point d'arrivée yàlla moo tërale àddunaam noonu faw dem di am waaye kóllëre mooy waral nit di rendre hommage mu mel ne loolu nekk na ci yow ba nga defe ko ci anam boo xam ne euh, anamu taalif ak ni nga ko defee luy wéy lay doon loolu la ñuy tuddee dee ñu bëri dañ ko ragal Sëriñ Tuubaa doon wax ne moo gën ci ñun dund kon li nga bàyyi xel ba tax mu daje lañu fi tey lu mat a bàyyi xel ah nous sentons notre mort inéluctable elle nous suit telle une amie pour le meilleur et pour le pur le pire et le lot de la vie cet endroit lassant qui descend des collines célestes vers les sombres profondeurs. Si la vie est la fin des rêves, je la fuirai de toutes mes faiblesses. Mes forces économisées, j'investirai pour ma mort prochaine. Qui comprend le visage impassible d'une belle laideur que fouette le vent vivant de ma mort. Mort bien-aimée de Mortala, tu m'embrasseras jusqu'au sang par une étreinte douloureuse. Ma vie ne vit que pour toi, ô mort. Par une nuit éclatante comme tes dents de croque-mort, libre comme la médaille de la patience, tu frapperas à la porte de l'attente et moi je t'ouvrirai. Et toi tu m'ouvriras. Et nous nous fermerons à cette vie, méprisable par ses vaines quêtes de sens. Je t'arroserai d'un regard vite, toi qui es pleine d'une félicité divine. na la yàlla sàmm defal la tawféex te wéttali la jërëjëf arrahmaan arrahim salawatullahi wa salaamuhu alayhi sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa xadim mbokk yi ñu leen di nuyu képp kenn ci turam ak santam di xam la yit ni comité conseil consultatif ñun ñëpp ngi ñuy teew ndax dañoo bokkoon ci comité bi di liggéey guddi ak bëccëg kon professeur ñu xamal la ni nekkoo fi waaye mel na ni li taala wax yaa ngi fi dana doy sëkk nag bu satu rasulullahi teewee seeti Cheikh El Khadim teew njabootu Seydil Hadji Malick teew al aima ñu teew ndax ku tudd imam Babacar Ndiour ngir taarix ngir taxawaay dafay mel ne ay ma yëpp dugg nañu ndax moom symbole la ci Thiès. saret bi ak maanaam foo déggee al ahlu ci loolu arabe wala alquran li muy tekki ci loolu arabe mooy ndey doom baay bàjjan waaye bu dee ci alquran jigéen lay tekki kon ndekete soxna ñeent lay taxawee dana taxawee ndey taxawee ak jigéen taxawee soxna ba pare taxawee doom moo tax jigéen dafa am njariñ jigéen dafa xuut jigéen kenn du ko wërta fooye moo tax góor goo gis mu tedd daa jigéen koo gis mu torox daa toroxal jigéen Lamine nag defoon noonu sox soxna su gaawaan kon fi ñu daanele rek mooy faatu suñu sëriñ Seexul Xadim radiyallaahu anhu daa fekkoon mag ñi sëriñ Mbay Jaxate ku diggu nu wolof la ñu maam ci baax bi naan wuri wu dem na gën waxi mag dem na ndañ taari lu waay lu doon jaay lii mu lamb sëriñ Tuubaa tiim leen ni leen ki gën a xam yàlla ci yéen dégg na <coughs> du noonu alaaj Babacar danga naan làkk dem na kóoni bàgg war na mbaam làkk dem na kóoni bàgg war na mbaam wuri wu dem na gën lu waay koy wax lu waay doon jaay li mu lamb udóobi ko mooy làkk dem na kóoni kilifa ku tawat tawati ndee garab buñ koy indil day yokk day gaawal faatu ga faatu mbaam kilifa gu ñu ko ci kaw jàpp benn yoon lu waay doon jaay li mu lamb mooy bu ñu ko tegee ci kursu bàmmeel lu mu jëfoon léegi mu gis ko wuri woo den ma këng nag mooy bu ñu ko géejee biir bàmmeel kon nga fàttaliku suñu soxna soo sa soxna su gaawaan te lislaam questionné loolu rasulullah yi daan ko def kilifa yu baax yépp daan ko def njabootu lislaam gépp nekk fi kon dafay mel ni delloo nga mbattu ci ndaa la kon ñu bëgg a yor soxna war na nañoo jàngat ni ngay doxee kon doxin wi rafet na honorables invités distingués chacun dans ses types de qualités honorable professeurs d'université professeur Lamine Ndiaye et tous les autres professeurs professeur Malik Ndiaye et chers collègues chers amis que j'ai trouvés dans cette salle. C'est un très grand plaisir pour moi de devoir prendre la parole aujourd'hui pour témoigner sur un homme que je crois connaître un tout petit peu, telle sa dimension est énorme. Je veux nommer le professeur Lamine Gaye. Le professeur Lamine est un anthropologue, mais les autres collègues universitaires le diront mieux que moi parce qu'ils le connaissent bien. Spécialiste de la tanologie, je crois bien, qui traite certainement de la vie et de la mort. Et dans deux de ses ouvrages, il y a de cela cinq ans, Mort et Thérapie, si je ne m'abuse, professeur, vous avez évoqué profondément le lien entre la mort et la vie. Et vous avez même, dans un questionnement diachronique et synchronique, développé l'idée que la mort n'est rien d'autre qu'une maladie symbolique qui est curable, mais qui symbolise un tunnel qui permet à l'individu de passer de la vie à l'au-delà. Est-ce écrire aujourd'hui un ouvrage sur votre défunt époux Soknaf Gawa, que je peux dire que je connais, mais en bonne femme, Talibi et puis je ne peux pas témoigner que je la connais tellement elle était effacée dans le quartier où on habitait. C'était difficile de mettre un visage sur son nom. Ce qu'on peut dire d'elle, c'est qu'elle était proche de son mari, profondément travailleuse, pieuse et dévouée à sa famille, que Dieu l'accueille dans son paradis éternel et laisse à sa famille, n'est-ce pas, l'ensemble des bienfaits que vous procurez, un dévouement extrêmement engagé à son mari et à ses femmes. Monsieur le professeur, je suis très heureux d'assister à vos côtés à cette, à cette séance de dédicace. Et c'est pour moi l'occasion de dire à la population de Thiès, au maire de Thiès, qui vous, qui vous connaît déjà, mais de vous tenir, comme le dit en Wolof, qui am doom ju baax ku ko am comme conseil xam ni Thiès am na ay doom yu brillant yu nëbbatu mais yu jara jarafe kon professeur maa ni sant bi ma mayee possibilité jël parole ci séance bu mel nii di sant ñi ma fi fekk ñëpp di gërëm wasalaam. maa ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant euh, kilifa yi fi toog kilifa diine kilifa aada. di remercier waa Thiès yi ñëw jàppale si Lamine Ndiaye ay mbokkam ay xaritam ay am na jàmmam Lamine mi ngi jiite moom moo jiite école doctorale yi gën a mag moo ko jiite. barki démb sànq dégg naa le directeur bi mu wax ne dañ ko dañ ko nommé coordonnateur des écoles doctorales de l'Afrique de l'Ouest loolu tamit dëgg la te loolu tamit sag la malheureusement ñun universitaires yi dañoo xaw a tëju suñu biir ba nga xam ni ñoo koy xam. mais bu ko ñaan xamoon buy lamine du dox sax ngay taxaw naan eh kay mooy lamine jaay mais amna aussi ay docteur yu mu formé ñu wañé ko ñëw université nek collège am di fa jàngale té loolu aussi laaj ñu xam ko ñu wax ko pour nit ñi xam ko pour ne pas être long lamine sag la sagu ties la nit ku baax la nit ku julité la nit la ko xam ni ku am couleur la parce que li def ni lu rafet la té ñëpp ko lu comme ni ko le maire waxé monsieur Talla La philosophie sur la, mort, qui, pour nous est une fin. Mais Lamine Mom être une attaque comme le un départ. Donc, dès l'entame de son titre faut poser problème. a des pas Je borom mais je ngi remercier voilà merci euh, mbokk jullit fi teew salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu. maaleykum salaam. nuyu kilifa diine ci jiital Chérif bi Mbàkke Oustaz Imam Diouf ñu ngi nuyu yéen ñëpp ci jiital Chérif. bu ñu leen di waxee nañ jiital Quraysh te bu ñu leen di mujjee. sooratul Shuura ci yeexu alquran laa as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba waaw ñi ma jege naa leen jiital leen te bu leen mujjee Lamine. comme wax na maa ngi ko soog di wax sama waa kër dama leen di woo naa leen kii jàpp leen man ak moom ne ba ko day bàyyi. dégg ku am diine la voyagé nañ ensemble xaw ma li ma la xam ngeen ko wala xamu leen ko voyagé nañ ensemble yaa des la 15 jours baa ngi maire bi day toog ñii di togg ci wetam 15 tomb 15 bàmmeel nekk ci biir kër gi kenn sañu la génn boo génn lay rey ci biir kër ngay suul kaar bi taxaw ne kaay leen dem jumaa ci la siré yi nekk fa naan waaw man musaafir la damaa def 70 kilomètres nangam nangam ñu nekkoon ci kaar bi matul 10 personnes ci la bokkoon moom ñu dem julli ji ci jàmm ñëw jàmm yàlla defal ñu jàmm te bal yaa ngi tàkk tat tat loolu rek laa ci mën a wax ci des moom yal na ko yàlla mottali livre bi ñu bind nag taalif la poème du roman du théâtre du essai c' est un nag mooy euh, en France c' est un art de marier lu bokkul nga jéem koo boole Le poète ne dira jamais à la femme, qui est belle et élancée, donc on gazelle aux attaches célestes. Les perles sont étoiles sur la lune de la Vous connaissez tu as de belles boucles d'oreilles, le a juste et les abeilles d'or sur tes joues d'ombre bourdonnent comme des étoiles. Il lui dira jamais tu as de beaux cheveux, il lui dira à l'ombre de ta chevelure s'éclaire mon angoisse au soleil prochain des plaisir. marie euh, c'est remarquable je vois l'odeur des roses je sens je vois le français aurait attendu je sens mais quand il dit je vois compte tenu de ce sémantique de voir vous entrer en contact avec le contenu sémantique de odeur immédiatement y a pour qui c'est essentiellement une poésie ci loolu la sëñ dafa euh, départ départ départ métaphore du déplacement métaphore du déplacement Et beaucoup les poème bi bu baax ci couverture beaucoup boo qui da ngay gis départ ci également beaucoup xoolee da ngay gis départ juróom-ñaari poème nous avons formé les sept poèmes nous avons formé une phrase nous avons fait ci quatrième de couverture c'est une représentation de la femme Nous xam nañ de représentation lisez lire Senghor vous verrez qu'il y a une représentation de la femme mais quand il met un point final la femme n'est pas là ce n'est que des mots c'est justement ça. Euh, mine fait une représentation et elle dit en sous-titre à Donc une belle indication nit ñi Ni fi nekk naan astu gaawaan nag Quoi ak laa ku wax astu mënu mais quel est le wax leneen kenn mënu ko parce que c'est de la poésie L'homme est poésie l'homme est poésie. la figure l'image qu'il donne maintenant de la figure de la femme elle est éminemment positive parce que c'est une femme qui est alliée au sourire elle est alliée à la douceur

bu ko defee kon tey loolu xam ni dañ ko jéggaane woon def ko kàllaama di ko liggéeyee bu ñu nekkee ci biir famille bi nag dañoo war a jël li xam ni moom la ñuy wax ci biir famille bi ñu waxee ak ñoom ci yooyu kat yàlla na defal ko gudd fan wér mu fekke njariñu njabootam yëpp ah jarosul yàlla ko li ci des mooy euh, am suñu sama yaay mi ngi fi mi ngi fi toog ñu koy gërëm mooy bu bëgg lu baax xam nga sax kenn du ni sa yaay nag leneen mais loolu mën nañ ko ko wax moom bëgg lu baax lool waaw waaw ah, barke rasulullah su ma kilul kii ma noppi puisque wax dara ba pare nga génn fii sa conscience di la yar loolu moom passé nañ ko nit jaraluñu hmm? mais loolu mën nañ koo wax ku dul ku dul ku ko xam see mën a seede jigéen ju bëgg lu baax ju jàmbaar koo xam ne mësul xaar ndimbal ci kenn ku mu bokkal dimbali na la dégg nga de loolu maa ko wax moom xam na ko ku nekk ci famille bi xam nga loolu te ci loolu la ne bëgg lu rafet rek du ñaaw fen lu mu ñàkk njaboot ma ko euh, xañ dégg nga de noonu la mbir yi demee kon ñoo ngi leen di gërëm bu baax mais bu loolu jàllee ñoo ngi am suñu baay euh, man suma papa ngeen xamuñu ko bi muy génn àdduna six mois laa amoon hmm? mais ñoo ngi am souvenir bu baax ba mel ni sax xanaa fekke nañu léppam naa ne Maïssa mon jeune frère professeur université Thiès yi sax ñëpp a ngi fi waa ji professeur Mortala Diallo ñëpp a ngi jógee Dakar ñëw fi rek famille yu Astou Gawane parce que ñoom ñoo ma ko joxoon te sonal luñ sonal mosuñu ma sonal benn yoon. wallahi mosuñu ma sonal benn yoon mais nag yàlla dogal na aussi comme ni ma ko waxee woon rek Astou Gawane yàlla moo ñu boole woon boobu xale la ñu ànd ci ngor te man nag dafa am lenn rek la ma nit mën a jëndee mooy ngor rek mooy ngor te dinaa leen xam ne nga yonantu alayhi salaam. moo li may wax maa ngi koy wax ci kanamu borom téere yi hmm? moo gënoon jukko ku yàlla bind hmm? ba yàlla tagg ko ci jukkoom waaye loolu mu matérialiser ko dund ko ku mu seqaloon du ñu dugg ci détail yéen a ma ko gën a xam que ci yéen laa ko jànge moo tax mais damay nett li seen nett li mais këram sax dafa daan am yoo xam ne léegi léegi ak ah soxnaam ci kaw fiir wala yooyu daan na yëngatu tuuti ci kaw fiir bu ko defee loolu kenn du ci topp jigéen asu ah, gaawaan bu ñu mësee wax rek fiir

ñu toog ba yàgg mu wow ma puisque maa ko dañ ko doon bëgg a yóbbu sans gendarmerie dee du fa dem na dem hôpital régional puisque nit ñi duñu xam duñu xam ni hôpital régional fi la fi la professionnel yi ne day xamuñu ni ñële bu ñu jaaxlee dañuy yanu indi fii comme xam naa fi man ni nañ ko indi fii na jege foofu bi fii kilifa yi nekk te boobu fee feebaru dara ñu kii mu ne fa Saint-Jean-de-Dieu ma nañ ko indi fii nañ ko indi fii biñ ko fi indee ma ki di xool ba yàgg moo professeur ma dooki ni ma ah, professeur sa soxna si yaru na ji tu vois sa soxna si yaru na ji ci kaw noppeem ak kiwam très réservé ci koo xamante ni du gaaw a dugg nit noonu la ko yàlla bindee woon mais foogoon na ni àdduna man rek maa fi nekk maay dund ci àdduna bi loolu yàlla defaloon na ko lool foogoon na ni man rek maa nekk ci àdduna bi hmm? dégg nga boo defee kon te dafa dama àgg ak moom foo xam ni waxoon na ma ko yàgg na ñu toog mu ni ma serigne lamine jay puisque ñom serigne lamine rek lañ may wax serigne lamine jay xana xamone sama seigne bi mo sama sey bi mo gëna lu yalla bind elle a dit ce qui est très rare ñun ay déglu kat ñu bayyi benn bis ñuy dem dem dem dem ba yag barka rasulullah munima serigne lamine man damay ñaan ma ñëk la dé man ko yow xalé bu toll yow lima la magé lool da mëna né ah ça c'est rare jigéen bi wax loolu wallaay maa ko wax ma toog mu ni ma bu ma sañoon nga njëkk ma njëkk laa ma njëkk laa faatu comme ça nga ñaanal ma wallaay di loolu jigéen ñu koy ñu ñemee jël risque boobu bëriwul moo tax bu mu ko yàlla defee loolu mosuma mën a gëm ni da ciy jóge ñu yóbbu ko Dakar bi ñu ko yóbbu Dakar man maa jël initiative nit ñi dañoo doon bëri fii ci kii bi ko seet si puisque nitu nit ñi la woon man ni nañ ko yóbbu dakaar principal kii dañu comme ça bu fi jógee mu dem kër ga noppalu toog loolu laa jàppoon bi ñuy wax it dañoo wax tey ma ñëw fa ba di ko tooñ nii ba wu reetaan man ko damay dem Ziguinchor am naa réunion université Ziguinchor suba boobu ay 18 heures man ko maa ngi dem mais damay wàññiku volu suba bi laay dem quinze heures laay ñibbi siwaat puisque réunion bi diggante midi 13 heures ma pare reetaan ci loolu la ñu tàggoo aéroport lañ ma woo ma toog ni ma julli fajar ba toog ni di werd nii téléphone bi woo ma wax ma donc ci ak dal ci la ñu tàggoo noonu mais loolu yëpp méritam la bu ko defee koon day jaadu nag euh, bu fi jógee ci kaw yooyu yëpp ma seqoon kook moom waaw ah, xëy na am nañu ko bëgg mënuñu ko waaye su ma yéene woon ci def loo xamante ni ba yomal xiyam du fi jóg te lii moom ba yomal xiyam du fi jóg nag moom waaw bind nañ ko te jeex na te wër na àdduna téré bi ñuko ñëk gis ñuko ñëk njëkk a gis nekkuñu Sénégal Paris lañ ma ñëk envoyer dama wax ni livre bi ya ko bind wala yow nangam nangam avant may xamni sax fi après la ñëw larmatan di len laaj ñu ni waaw génn dé nga pour won la ni yoy yëpp mais lo yëpp ci kaw kóllëre ci kaw kóllëre rek ci lu bax lool rek lañu jublu ci livre bi bëgg ko rendre hommage ci kanamu famille am ci kanamu njabotam xam ni mérité na lool mais lool rek lañ ko té te ñu lu ëpp lool lu dul loolu nag ñaanal nañ ko ñaanal bu wér a ñaanal bu te xam nañu lan mooy ñaanalu borom kër ak yow loolu defal nañ ko ko defal loolu defal na ñaan yooyu defal nañ ko ko lu wér waaw te am nañ ci yaakaar démb rek nguraan ñoo ngi koy defar wàcceeli kaamil Cees it wàcceel nañ ko kaamil fu ne loolu moo pour doole pour wan na ni bàyyi nañ ko xel te mësuma julli te musuma wer te ñaanaluma ko te am nañ yaakaar ci loolu fu mu ne dana ko dana ko fekk foofu loolu rek moo motivé livre bi moo motivé wiyataay ma bëgg ko sàggal ci biiri mbokkam ne larmatan wax nañ ma ko ñoom ñii ñoom fi bis mu ne ñu ma ah livre bi moom sa génn ñu ne ma da nga ko dédicacé ah yooyu folklore la yooyu du suma mbir bii bi mu génnee directeur bi woo ma ma ah professeur bii moom da nga ñu ko may mënta ñàkk man leen danaa ci nangu naa ngeen ko kon

xamna naa dañoo foog ni <laughs> dama fatte tala sil la mais leer rek bu ko defé mu leer li lii ñu ko bindal ñaari kay ñu bind ko ci wax te fàttaliwuma dara dama bëgg bayyi bis ba lepp jeex ba ma wax ak ñi ñi ma wara waxal ñëpp bañ dégg ko nag ma jàkkaarloog mom wax ko limako wax dégg bu ko defé mu leer dégg mais awma ci won fatte <laughs> dégg nak lan laa bëggoon noonu la xam ne xam nga ni ëpp na ya mënta ne sax ñu toog fii ba kii ba kii après monsieur le maire daal di dem sa yoon c' est pas possible dama bëggoon bu ma waxee li ñu indi ma wax nag ci yow ah monsieur le maire ni nga ko waxee rek yow sunu frère la ñu yarondoo ci benn quartier nga nekk sunu fierté yàlla dogal nag aussi mën naa ko fii défendre naa la fu ne foo nekkul ñun yàlla dañoo nattawul ay politique ak yooyu bi ñu fi juddoog léegi jàng lañ fi def ba ñu fi génnee jàng dem France ba ñu jógee France dugg université ay responsabilité responsable ba tey nii loolu la ñu yàlla kiiwee donc yu bëri mënuñ ci woon dugg di ko xam mais li ñu la jàppee mooy fi nga yaroo ñu xame ñu ñu yaroo fa ñun ñëpp dafa am noo xamante ni ku la xamul doo xam yaay kan léegi leen nga def ay mbir kii yoo xam ne ah da koo xamul